Heavy Mess.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 géej gi kay moom daal dafa sàcc bulletin médecin bu am kase docteur Koudous ba nekk ca l'hôpital no Mouhamadou Mansour Baro bu Mbour naka noonu ci la ko dal di publier ci statut whatsapp am di laaj ndimbal bu toll ci trois cent cinquante mille francs ngir mën ci def ay analyse am sa waay ci ay dóoram sax dem na ba ne moom ci boppam jot naa dajale cent cinquante mille francs ba li ko dese daal ngir mu mën a faju mooy ndimbal bi muy ñaan toll ci trois cent cinquante mille campagne de levée de mu lancé na moo ko mujj daaneel ndax yëf yo dafa mujjee tokki ci Kudus médecin bi nag bi mu jotee ci information bi daa fexe ba contacter M Samb dal di koy invité ca l'hôpital ba ngir dimbali ko xam nga rek nit boo naree daanu M Samb jëliwul dara dal di respecté rendez ba heure bi ko médecin bi jox fekk na ko ci l'hôpital bi waaye mujj ta neex ci moom de ndax M Samb bi mu yegsee dafa fekk ay élément commissariat central bu Mbour ñu ne ci ciix teg loxo waaw góore waay dal di koy yóbbu ci kanamu attekat bi nag M Samb nangu na lépp lu ñu koy tuumal waaw bi ñu ko laajee noo dafa am bulletin bi ak kase bi nag M Samb ne dafa entré woon ci hôpital bi bi mu entré ci l'hôpital boobu ci la fexe ba sàcc bulletin bi ak kase bi dal di ciy def njombeem fi mu toll nag mu ngi ñaan ñu dimbali ko jéggal ko <laughs> ma ne ci Sénégal entré xalaatoo lenn lu dul sàcc ay document yu médecin mi métti moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave wax ma ne police bi nag mooy bës ci màggal gi ndax police bi li mu def mooy ab motaaram daal la jël di escorter ab jaaykatu téléphone buy wuyoo ci turu es di ko xalal yoon ni président ay way ma sa waay nee ñu sens sax jëloon di xalil jaaykatu téléphone bi sawaay ne nongu ci biir otom ma ne ni xalif général mbaa président laa wax waaye nag police boobu noonu li mu def soo wattuwul dina ko jural ay daan yu rey de ndax mën na dem sax ba ñu raje ko dal di koy dàq ëpp naa def nag yar leen ko rek bak waaye jaaykatu téléphone bi di es bu so démentir na de nee na police bi jëleewu ko ndakaaru police bi fi mu ko jëlee mooy bu la ko koje ndax dafa gis ci otom nit ñu bëri dal di koy wër xammee ko désordre dal di fay am ndax moom nee na naka jekk gaa yi dañu koo xàmmee ba buñ ko gisee rek dañ koy sëkkatal mu leen di dimbali bi police bi gisee loolu nag ci la ko jëlee dal di koy escorter sa waay ne nongu ci oto bi mel ni président dal di koy jàllale mu dem waaye ma ne réew mee neex man de gàmb gi maa ngi ut motard bu ma escorter moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax la xew ca Pikine romb na doy waar ñaari ouvrier dal la fa ay bant dal seen kaw ba ñu jaare fa ñàkk seen bakkan musiba naaru la mbir mi mu ngi xew alxamis bi weesu ci ab dépôt bu nekk ca buntu Pikin ñaar ñi ci ñàkk seen bakkan nag nee ñu ay journalier la lañu woon ci dépôt bi ndeysaan ñoom daal fa ñu toog di waxtaan la banti daanu seen kaw ñu jaare fa ñàkk seen bakkan kenn ki di wéew ci turu es am ñaar fukki at ak ñaar moom bi bant bi daanoo ci kaam si la ñàkk bakkanam ka ca des di wuyoo ci turu es jeeju am ñaar fukki at ak ñeent moom bi bant yi dalee ci kawam évacué nañ ko l'hôpital principal waaye moom it foofu la mujjee jaaree ñàkk bakkanam ay waay lal ma lii rek ci mim réew te bu amee cim réew ay waxi politique rek ngay dégg ay waxi politique te bu doon ci yeneen réew yi mbir mii dina yëngu de waaye nag ubbi nañ ci ab lanket mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz